sëriñ omar mbàkke sëriñ omar mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atum 1884 ci dëkk bii nag di mbàkke kajoor di doomu cheikh ibrahima mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ mbàkke kajoor ak ku ñuy wax soxna penda buya jóob sëriñ omar mbàkke di doomu sëriñ mbàkke kajoor am na kenn kum bokkal soxna penda buya jóob mii di waajuram wu jigéen muy ku ñuy wax sëriñ amar faal mbàkke waajuram wu jigéen wi di soxna penda buya jóob ñaari bant rek la am ak kii di cheikh ibrahima mbàkke ñu gën koo xam ci mbàkke kajoor muy sëriñ amar faal mbàkke ak sëriñ omar mbàkke mi laata ñuy wéy ci mbirum sëriñ omar mbàkke gelongal ñu ñëw ci waajuróom wi di soxna pend buya jóob ngir xamale leen ak moom cheikh ibrahima mbàkke bu mbàkke kajoor ñu gën koo xam ci sëriñ mbàkke mbàkke kajoor mooy ki ko dencoon moom soxna pend buya jóob itam moo nekkoon yaayu daaray ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba tax na itam saa su ne moo daa fóotal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba Tuubaa Seexul Xaddiim di wax ne su ko masaa yit lekk ci àll bi wala mu koy yit ndox ngir mu naan ci àll bi ndox ma rek la Seexul Xaddiim daa jëfandikoo te da ci daa jàpp waaye ñam wi mu ko daa jox noone mu koy joxe bu dikkaatee noone itam lay fekkaate bool bi ba tax na melokaan woowu ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim meloon ci ni ko soxna Penda Jóob doon xoole taxoon na itam soxna Penda Jóob ñëw jaayante woon ak moom ngir bëggoon a lu ci ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim Seexul Xaddiim ko nangul ak laaj na mu def lan moo tax mu def ko mu di ko xamal ne sa waajur wi di cheikh ibrahima mbàkke nitug suñ boroom la te jàmbaar la lool waaye yow mii nag di xaadim rasuul la neen nga ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim di tontu soxna penda buya jóob di ko xamal ne waajuram wow di cheikh ibrahima mbàkke moom nituk nitug suñu boroom la waaye nañ cey jariñoo rek moom nga xamul soxna penda buya jóob dinaa la dénk na ngir nga xam naka ngay jariñoo ci sama waajur woowu sa boroom ci zaahir ak ci baatin foo man di nekk nag suñ boroom dana la jéggal na nga sax nag ci tuub te di ci góorgóorlu teyit nag na nga moytu ak jeng na nga sax ci ak nëbbutu te sa kàddu itim bum ju kaw mukk ci diirub jamono loolu nag soo ko defee ak cant rek nga ciy am sab xoolin na nga ko yamalee soo demee ba mënoo ñàkk bañ a xool daal deel xool lépp lu am njariñ na nga moytu jëw ak rëy rëylu bul jàpp ne daal koo gis rek yow yaa ko gën lii di noppi nag ak muñ nag dëkkoo ko ko def ndax baaxul ngis talitim bu àdduna neex a neex ba nga def ko lépp looy jëf na yàlla rek tax nga def ko naw jëfitim bu ko def ba mukk dégg te liitim ne damm na itim moytu ko bu baax a baax bul bañ kenn itim ndax ak mbañeel baaxul su demee ba munta ñàkk daal na nekk lu am ab sabab sag jaamu yàlla nag foo tollu dee ko sellal saa boo gisee koo war a laabire nag laayee ko biir lii ma la wax nag soo ko toppee noonu danga am ak jagle nag ci suñu boroom ba tey ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim mi ngi xamal soxna penda buye jóob bul jël ak topp yàlla na nga am ko yaa ngi koy amee ci sa ron boroom kër jigéen nag jihaatam mooy topp boroom këram ba tey sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi xamal soxna pend bu ya jóob di ko wax ne boroom kër de heure bu xolam seddee ci ki mu denc suñ boroom itam day daa di gërëm góor nag heure bu gërëmul soxnaam suñ boroom nag dana ci maandu bi sëriñ tubaa seexul xaddim di dénk ndénkaan lim doon def ci soxna pend bu ya jóob mi ngi koy xamal na nag lépp lu am te jógewul ci suñu boroom na la leer ne loola ak neen la ñu teewlu mbind naka lay def ba jaruñu ci boroom këram bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri qadimihi wa ummatihi wa sallama taslima qaala taalibullahi wa rasul arraji minhum arrida walqabul yuusi muridatahu zawjata ammihi Penda Diop xafarallahu lana wa lahuma wa maha hanna wa anhuma kulla sambin wahub alayki bisabri wa taqwa rabbuki fi sirri wal jahri fa yaxfir laki duumi ala tawbati bijtihaadi wala tamili li siwa rashaadi duumi ala alqumuli waltasatturi waltaxfidi sawtaki dahran tuskari laa tansuri ma dumta xayatan ila xayri allasi taxliluhu qadim jala wajtanibi alxibata waltakabura wa asbiti sukuta waltasabura wajtanibi alkasiba walriyaa walujuba والسمعة والبغضاء وأثبت الصدع مع الإخلاص والنصعة الصري بالاختصاص ولا ترومي طاعة الله بلا طاعة زوجك التقي ذي العلا ولتعلمي أن جهاد النسوة في طاعة الأزواج دون مرية وعيثما زوج رضي عن زوجته رضي عنها ربها بنعمته أما إذا لم يرض عنها أبدا فليس يرضى الله عنها سرمدا ولتعلمي بأن كل ما صدر لغير وجه ذي جلال فهدر leen dénkoon soxna Penda Buye Diop tañ leen ko doon dégtal noonu képp kuy jigéen nag war ngaa roy ci kàddu yi te xam na ba ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di wax soxna Penda Buye Diop itam ca nga bokk te ku ko dégg itam nga jëfe ko ndax kat moo gën a wóor jërëjëf soxna Penda Buye Diop ndax kat suñ déggee kàddu yi Seexul Xaddiim yi yaa tax soxna Penda Buye Diop moomu nag moo nekkoon waajuru sëriñ Omar Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Mbàkke Kajoor sëriñ Mbàkke Kajoor moom moom Mamor Anta Sali Mbàkke ñoo bokk Maam Balla sëriñ Mbàkke Kajoor moomu moom la baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ngir mu nekk ab cërëm ba tey sëriñ mbàkke mbàkke kajoor moom ci ñi ko xamul moom meññi kii di sëriñ abibu mbàkke imaam moom meññi itam sëriñ amar faal mbàkke bu mbàkke kajoor ak kii di sëriñ omar mbàkke ba tey sëriñ mbàkke mbàkke kajoor moom ci ñi ko xamul moo meññi itam waajuru soxna mbeen ngaabu ba tey sëriñ mbàkke mbàkke kajoor moom ci ñi ko xamul ba tey moo meññi itam waajuru soxna may mbàkke moom ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ndax sëriñ tubaa seexul xaddiim amoon na ñetti soxna may muy soxna may kubra mi bokk ak cheikh abdu xaadar mbàkke benn waajur wu jigéen ak soxna maymunatu mbàkke laylatul xadar ak maneen soxna maymunatu mbakke moom soxna bu mbakke moom sëriñ mbàkke mbàkke kajoor soxna maymunatu mbàkke mi mi ngi ci armeeri gédé yi ñu denc yal na ko fa yàlla fekk ak ay leer ci darajey waajuram sëriñ omar mbàkke bi matee dal li di alxuraanul karim waajuram sëriñ ibrahima mbakke ñu gën koo xam ci sëriñ mbàkke kajoor sëriñ tuuba seexul xaddiim la ko yit ngir mu dalal ko alxuraanul sëriñ soye bu mbàkke foofu la ko dalalee alxuraanul karim mook cheikh mamadou moustapha mbàkke ak kii di cheikh mamadul faadal mbàkke ñoom ñett ñoo dalandoo alxuraanul karim ci benn bëccëg ginnaaw bi nag la leen sëriñ tuuba seexul xadim jébbal sëriñ ndaam abdourahmaan loo ci ndaam daaru xalimul xabiir foofu lañ nekk nag ba niñ mokkale alxuraanul karim ñoom ñett ñépp itam ñu daal di wattu alxuraanul karim bind lii di kaamil bi ginnaaw bi nag la sëriñ tuuba seexul xadim sàkku ci sëriñ ndaam abdourahmaan loo mu jébbal leen ndaamal daaru ngir ñu jàng lii di xam-xam ci loxoy maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci sëriñ Omar Mbàkke moom sëriñ Mbàkke Kajoor jànge nag lii di xam-xam ba géeju ci lool moo mook Cheikh Mudu Mustafa Mbàkke ak Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ci ndigalul Xaadim Rasuul ginnaaw nag jóge nañ ci loxo loxoy maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ngir ñu jébbal leen maam Moor Jaara magi mag ngir mu xool seenum njàng fan la toll waaye macha la maam Moor Jaara wax ndax kat li maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ndakaaru def ci ñoom ci wàllu xam-xam amut laneen lum ci mën a dolli lu dul ngàcce ngaa laama mu wéy desandi nag ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom sëriñ omar mbàkke ci loxoy maam ceerno ibrahima faati lañ nekk ba ni sëriñ tubaa seexul xaddiim bàyyi ko ci géej gi ci atum 1902 ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul xaddiim jaaree fi mu jaar ba ñëw ci dëkk bi di daaru marnaan ci ngan gum amoon ci maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru nekkoon nañu ak sëriñ tubaa seexul xaddiim ci dëkk boobu di daaru marnaan ba ni fi sëriñ tubaa seexul xaddiim tubaab bi duggaat ci ñu yóbbuwaat sëriñ tubaa seexul xaddim ci réew mi di gànnaar bi sëriñ tubaa seexul xaddim di dem gànnaar boobu ñu ngi ci loxoy maam ceerno bu sëriñ tubaa seexul xaddim eggee gànnaar ci diir bu néew nag sàkku woon na ci maam faati mbàkke mu jox ko kii di cheikh masamba mbàkke cheikh mamadul mustapha mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke ak sëriñ omar mbàkke gelongal ngir ñu fekk si ko ci dëkk boobu di gànnaar ak sëriñ moor roqaya buso ak ñeneen ak ñeneen ñu takk sàkku ci doomu cheikh yi fi nekkoon jamono jooju ginnaaw buñu eggee gànnaar ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim wéyal nañ fa seenum njàng ci kàllaamay arab ngir ñu gën a giiju ci wàllu xam-xam ci làng boobu di arab foofu itam lañ nekk ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci gànnaar ba ni fa sëriñ tubaa seexul xaddiim bàyyi ko ci atum 1907 ñëwaat ci résidence surveillée ci dëkk bii di Ceyeen Jolof Ceyeen Jolof googu itam ànd nañ fa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim nekk ba ni fa sëriñ tubaa seexul xaddiim bàyyi ko ci atum 2012 laata sëriñ Tuuba Seexul Xaddim di bàyyikoo ci dëkk boobu di Ceyeen Jolof jot nañ nag lii di seen ngërëm ci dëkk boobu di Ceyeen Jolof muy moom cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke cheikh Masamba Mbàkke cheikh Mamadul Faadal Mbàkke sëriñ Mor Roqaya Buso ak moom sëriñ Omar Mbàkke ak kii di sëriñ Amar Faal Mbàkke mi nekkoon magu sëriñ Omar Mbàkke gelongal ndax ci dëkk boobu di Ceyeen Jolof li ëpp ci seenu tarbiya foofu lañ ko defee ci diir bi sëriñ Tuuba Seexul Xaddim nekke foofu ci dëkk boobu di Ceyeen Jolof ndax xam ngeen ci Ceyeen Jolof googu la sëriñ Tuuba Seexul Xaddim di woolu cheikh mamadul faadal mbàkke mu dul mustapha mbàkke sëriñ moo bu buso ak kii di cheikh masàmba mbàkke di leen xamal ne li fi nekk mayewul day jaay te képp ku ci bëgg da nga nekku murita ci la ñeent ñooñu jaayante ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim lu ko jiitu nag sëriñ omar mbàkke ngal ak sëriñ omar faal mbàkke fekkoon na nag ñoom ñu nekk ay murit ndax kat seen waajura moo leen jébbaloon sëriñ tuuba seexul xaddim laataa muy dem ci géej gi kon jaayante ba ñoom fekkoon na ñoom ñu jaayante ba pare ci ñeent ñooñu nag jaayante foofu ci ca yéen jolof waaye ngërëm moom ñoo ko amandoo ci ca yéen jolof ci atum 1909 la leen sëriñ tubaa seexul xaddim gërëm ci ca yéen jolof daal leen di sampal nag li ñu tudde kër mu jël kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke mi nekkub taawam jël doomu sëriñ ndaam abdourahmaan loo bu ñuy wax soxna aminata loo bintu sëriñ ndaam abdourahmaan loo bintu soxna aminata mbàkke bintu mamor anta sali mbàkke jébbal ko cheikh mamadou moustapha mbàkke ngir mu dëkkoo ko cheikh mamadou moustapha mbàkke am na ci ñaari bant ci jëmm jooju di soxna aminata loo mbàkke madina bintu soxna aminata mbàkke bintu mamor anta sali mbàkke muy soxna mariyamu mbàkke ak sëriñ mbàkke madina ca jataay boobu itam la sëriñ tuuba seexul xaddim jëlaat baneen doomu sëriñ ndaam abdurahmaan loo ñu koy wax soxna assu loo bintu sëriñ ndaam abdurahmaan loo ak soxna aminata mbàkke bintu mamor anta sali mbàkke jébbal ko cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke dëkkoo ko am na ci itam moom itam ñaari bant ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna mbeen mbàkke faliilu ku ñuy wax sëriñ moodu maamun mbàkke Touba Seexul Xaddim ba tey ci jataay boobu la jëlaat baneen doomu sëriñ Ndaam Abdourahman loo muy ku ñuy wax soxna Faati Lo jébbal ko sëriñ Amar Faal Mbàkke ngir mu dëkkoo ko soxna Faati Lo moom itam doomu sëriñ Ndaam Abdourahman Lo la ak kii di soxna Aminata Mbàkke bintu Mamor Anta Sali Mbàkke sëriñ Amar Faal Mbàkke itam am na ci ku ñuy wax sëriñ Abdul Quddus Mbàkke ak ay rakkam wala ay magam mu jëlaat nag doomam ju ñuy wax soxna Faati Mbàkke bintu sëriñ Touba Seexul Xaddim jébbal ko nag sëriñ Omar Mbàkke Gelongal sëriñ loolu itam am na ci ak njaboot muy sëriñ Moodu Mbàkke ak ay rakkam ginnaaw bu leen sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim gërëmee ci benn bëccëg ci dëkk boobu di ci yéen jolof itam noonu itam na leen taxawalee kër ci génn bëccëg muy ñoom ñeent ñooñu ci atum 1909 muy seex mu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke sëriñ Amar Faal Mbàkke ak moom sëriñ Moodu Mbàkke Gelawangal biñ ci tegee fukki at ginnaaw bi la sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim fopp baneen doomu sëriñ Daam Abdurahmaan Lo muy ku ñuy wax soxna Mareema Mamor Anta Sali Mbàkke ak sëriñ Ndaam Abdourahman Lo yébbal ko cheikh Mamadul Bachir Mbàkke cheikh Mamadul Bachir Mbàkke am na ci ku ñuy wax soxna Assu Mbàkke soxna Assu Mbàkke moom bi matee dem kër sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke lañ ko jébbaloon sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke moom ak soxna Assu Mbàkke moom bintu sëriñ Basiiru Mbàkke am nañ doom ju tudd sëriñ Mustapha Mbàkke Abdul Aziz wala sëriñ Mustapha Mbàkke Daaru Tanzil ñoom ñooñu nag foofu lañ nekk ci ci yéen Jolof nekk fa ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ba ni fa sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim bàyyi bàyyi ko foofu ci Ceyeen Jolof ci 1912 dem njaareem ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul xaddim ñëwee njaareem nag fekk si woon nañ ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci dëkk boobu di njaareem waaye yàgguñu fa ay mu jóg leen a jox ndigal nag ngir kenn ku ne nag dem gor ji ab dëkk cheikh mamadul moustapha mbàkke mu yebal ko mu dem tundoodi mu mamadul faadal mbàkke mu yebal ko mu dem ndindi sëriñ amar faal mbàkke mu yebal ko mu dellu mbàkke kajoor sëriñ omar mbàkke ak sëriñ moor roqaya buso nag mu yebal leen ci dëkk bu sell ñu ñëw fi muy xamal kii di sëriñ moo roqaya buso di ko wax ne soo demee Touba de nga sàmmal ma dëkk ba ku fa nekk ci yoon nga fonk ko te toppatoo ko képp kuy jàddal na nga teg ko ci yoon muy mu nekk chef de village dëkk bu sell bi di Touba mu jël nag kii di sëriñ Omar Mbàkke gelongal na ko yow itam demal ci dëkk bu sell boobu di Touba nga nekk fa bépp gan bu ma am ngir mu ñëw di nemmee ko ci sama dëkk boobu di tuubaa bu ñëwee dal ak yow nga toppatoo ko teral ko ba keroog mu fay bàyyi ko dil ci man mu jël na Touba ngir féete fa yor fa nag daaray alxuraan ji di jàng ka jàngale loolu itam tax na ñoom ñett ñooñ ñoo bokk ci benn loo bu ñu dëkkee ngir ndigal lu leen sëriñ Touba Seexul Xaddim boole woon sëriñ Omar Mbàkke nag foofu la nekk ci ndigalal ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim ak ki ko sëriñ Touba Seexul Xaddim booleel ci wàllu kër muy doomu ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim di soxna Faati Mbàkke moom soxna Penda Buya Ba ak ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim sëriñ Omar Mbàkke gelongal am na ak njaboot nag ak kii di soxna Faati Mbàkke bintu sëriñ Touba Tuuba ñu ràññee ku ñuy wax sëriñ Moodu Mbàkke ibnu soxna Faati Mbàkke bintu sëriñ Tuuba Seexul Xadiim ak sëriñ Omar Mbàkke Gelongal ba tey soxna Faati Mbàkke bintu sëriñ Tuuba Seexul Xadiim am na fa itim ku ñuy wax sëriñ Cheikh Mbàkke ibnu soxna Faati Mbàkke bintu sëriñ Tuuba Seexul Xadiim ak sëriñ Omar Mbàkke Gelongal sëriñ Cheikh Mbàkke moomu ibnu soxna Faati Mbàkke bintu Seexul Xadiim laata muy samp kër bàyyi ko na fi sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Omar Mbàkke mi waajuram sëriñ Tuuba Seexul Xadiim la ko duppe ak ku ñuy wax sëriñ abdul karim mbàkke ibnu soxna faati mbàkke bintu sëriñ tuba seexul xaddiim ak sëriñ omar mbàkke gelongal ak seen jigéen ba ñuy wax soxna ami cheikh mbàkke bintu soxna faati mbàkke bintu sëriñ tuba seexul xaddiim ak sëriñ omar mbàkke gelongal soxna ami cheikh moomu bintu soxna faati mbàkke bi matee dem kër sëriñ alioune mbàkke ibnu cheikh moodu mustapha mbàkke lañ ko joxoon mook sëriñ alioune mbàkke am nañu njaboot waaye njaboot ga dañu dundul ginnaaw sëriñ alioune mbàkke soxna ami cheikh mbàkke jébbalaatoon nañ ko sëriñ omar mbàkke moom sëriñ Amar Fall Mbàkke am naa moom ñaari bant muy soxna muslimatu Mbàkke ak soxna Mariyamu Mbàkke ñeenti bant yi la soxna Faati Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim am ak sëriñ Omar Mbàkke gelongal ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mi waajuram ndax moo ko ko jox ngir mu nekk fa ci wàllu kër di liggéey ci loxoy jëmm jooju di sëriñ Omar Mbàkke gelongal ci dëkk bu sell bi di Tuubaa ci kër sëriñ Omar Mbàkke gelongal ci ndigal lu mu toog foofu te ko ko fa di ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ngir mu koy sàmmal nga xam ne nii dañuy jóge njaareem ngir di seet si Touba soxna Faati Mbàkke bintu Serigne Touba Seexul Xaddiim ci loxoy Serigne Omar Mbàkke Gelongal nag la nekk ba ni mu génnee àdduna ci atum 1930 ñu jébbal ko boroomam ci dëkk bu sell bi di Touba Serigne Omar Mbàkke Gelongal nag ci dëkk bii nag la nekk di Touba di yar di jàng ak di jàngale comme ni yoonu murit baaxoo di doxe mu wii nag di sàmm ndigal li ko Serigne Touba Seexul Xaddiim dénk ci dëkk bi ba ku fi ñëw diirub li ngay dem nga nekk këram ba sa yitte mat nga delluwaat ci ku baax ki Serigne Touba seexul xadiim ci dëkk bii di Touba gi mu nekkoon sëriñ Touba Seex Saalihu Mbàkke netti leen a njabootug sëriñ Omar Mbàkke gelongal di leen xamal ne de ñoom biñ nekkee ci daaray sëriñ Amsatu Jaxate ji di jàng lii di alxuraanul karim muy moom Seex Abdul Ahad Mbàkke sëriñ Touba Seex Saalihu Mbàkke sëriñ Soyebu Mbàkke ba ci seen rakk ja Seex Abdul Samad Mbàkke ibnu sëriñ Touba Seexul Xadiim Seexul Xadiim mi nekkoon seen mag moom moo nekkoon seen yaayu daara dawul nangu leen lu leen metti sëriñ Touba Touba Cheikh Saliou Mbacke keroog ca jataay ba ma ngay nettali njabootu Serigne Omar Mbacke gelongal di leen wax ne dëgg la de njàng mu neex ak togg gu doy de amoon na kër ma Massamba Mbacke waaye kër Serigne Omar Mbacke itim de togg gu neex ak njàng mu neex itam amoon na fa ndax ñun ñi xam nañ ci dara ndax bëccëg gu jot daa nañ xam li soxna si togg Serigne Omar Mbacke gelongal nekkoon na itim ku seexul xattim bàyyi woon xel ba taxoon na faboon na doomam muy soxna Faati Mbacke Serigne Touba Seexul mbàkke ndax suñu omar mbàkke kat macha allah ku neexoon xel la te daa jàpp moo tax itam seexul xaddiim taam woon na ko ci loolu neexum xel moomu te mën a jàpp sax law na itim ba ci njabootam muy sëriñ moodu mbàkke gelongal itim noonu la meloon ba tax na lu masaa dégg wala mu xam ko du ko fàtte doomam jii fi nekk itim toog toogaayam itim di sëriñ ceerno mbàkke gelongal itim noonu la mel macha allah yal na yàlla xeeb dolli yal na yàlla wéral cër yi itim te def barke baay ba ko fàtte noonu ko seexul xaddim waxe ni la koy jàppee tax na itim kii di seex moodu mustapha mbàkke defoon na ko conseil balaa def dara itim daana ko laaj xalaatam kon bokkoon na itim ci ñi wóroon seex moodu mustapha mbàkke bi mu fi nekkee ñaari doomu seex moodu mustapha mbàkke itim laataa ñuy samp kër seex moodu mustapha mbàkke yabaloon na leen ci seen waajur woowu di sëriñ omar mbàkke ngir ñu dem fa muy sëriñ mbàkke madina ak magam sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma noonu mbàkke gelongal ndax xol bu yaaba sëriñ omar mbàkke gelongal nag ci dëkk bii di tuubaa nag la féete ba ni sëriñ tuubaa seexul xaddim génnee àdduna ci atum 1927 bi sëriñ tuubaa seexul xaddim génnee àdduna ci def na comme ni ko mag ñëpp defe ñëw jaayanteeg ki fi nekkal sëriñ tuubaa seexul xaddim di cheikh mamadul mustapha mbàkke mu wéel nag ndigal li ko sëriñ tuubaa seexul xaddim bàyyi di toog ci dëkk bu sell bii di tuubaa ba ci atum 1930 mu jóge nag ci dëkk bu sell bii di tuubaa dem nag ci wetu ndula ci dëkk bu ñuy wax ñaaxeen amoon na fa ay tool di fa bay def na nag ci dëkk boobu juróom benni at ndax ci atu 1930 ba atu 1936 mi ngi ci dëkk boobu di ñaaxeen nekk ci wetu ndula di yar di jàng ak di jàngale liggéey ak mbooloo mi ko sëriñ Tuubaa Seexul xat Xaddim booleel ngir mu defar leen ci atum 1936 nag la yabal donga yooyu mu nekkaloon di liggéey ci dëkk boobu di ñaaxeen nekk ci wetu ndula yabal leen ci suuf si ñu tuddee gelongal nekk ci wetu mbar nawetu 1936 boobu foofu la donga yi nawet ca déwén sa di atum 1937 ci la sanc nag dëkk boobu tudde ko daaru sàkkoor ñu koy wax daaru sàkkoor geloongal wala ñu bari gën koo xam ci geloongal waaye sëriñ omar mbàkke daaru sàkkoor la ko tudde mu toll ci fukki kilomètres yu tekk ginnaaw bu mu nekkee daaru sàkkoor geloongal googu nag sancaatoon na yeneen i tool diggante tool yi ak daaru sàkkoor geloongal ñaari kilomètres la mu tudde ko bustaan donga ya nekk foofu di liggéey su soos di bustaan nag ginnaaw bu mu fi bàyyi ko ci atum 1953 sëriñ moodu mbàkke geloongal bi nekkoon ab xalifa moo yore woon suuf soosu di ko doxal biñ demee ba ci atum 1960 la doomam ji di sëriñ Basiiru Mbàkke dem ci magam ji di sëriñ Muudu Mbàkke Gelongal ngir laaj ko suuf soosu sëriñ Muudu Mbàkke Gelongal fekk si woon na sëriñ Basiiru Mbàkke Gelongal ci bëgg-bëggam boobu muy jox ko suuf soosu di bustaan ginnaaw bi nag la ko sëriñ Basiiru Mbàkke Gelongal sanc tudde ko daaru minnam ñu koy wax daaru minnam Gelongal kon bi fi sëriñ Omar Mbàkke di nekk ay daara la woon ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag la doomam ji di sëriñ Basiiru Mbàkke laaj magam ji sëriñ Muudu Mbàkke Gelongal mu jox ko suuf sa mu def ko ab dëkk tudde ko daaru minam waaye sëriñ omar mbàkke bustaan la ko tudde woon sëriñ omar mbàkke ci dëkk boobu di daaru sàkkoor gelongal fi la nekk ba ni mu génnee àdduna ci atum 1953 dëkk boobu di daaru sàkkoor gelongal képp kum séqal ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim fekk si nga ko ci dëkk boobu di daaru sàkkoor gelongal cheikh mamadou moustapha mbàkke ñëw na fa ay yooni yoon ci dëkk boobu di daaru sàkkoor ngir wóllëre ak boole gu leen sëriñ tubaa seexul xaddim boole woon ba kii di sëriñ omar mbàkke tudde woon am na doom sax cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mahamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tuba seexul xadim moom itam ñëw na ci dëkk boobu di daaru sàkkoor gelongal ay yooni yoon di seet si sëriñ omar mbàkke ngir cofeel ak boole gu leen ku baax ki sëriñ tuba seexul xadim boole ba kii di sëriñ omar mbàkke gelongal tudde na doom cheikh mamadul faadal mbakke ndax sëriñ elaaji mbàkke gelongal mi ngi fi cheikh mahamadul bachir mbàkke itam ibnu sëriñ tuba seexul xadim itam ñëw na ay yooni yoon ci dëkk boobu di daaru sàkkoor gelongal doon seet si kii di sëriñ Omar Mbacke itam tudde na doom Cheikh Mamadul Bachir Mbacke muy sëriñ Bachiru Mbacke gelongal sëriñ Bachiru Mbacke moom sax bi sëriñ Omar Mbacke nekkee ci feebar bi Cheikh Mamadul Faadal Mbacke moo ko yabal ngir mu dem daaru sàkkool gelongal ngir jëli sëriñ Omar Mbacke indi ko ci dëkk bu sell bii di Touba kon ak kóllëre moom amoon nañ ko te bi mu génnee àdduna moo ko waajal sëriñ Touba Cheikh Abdul Ahad Mbacke nekkoon na sax ci dëkk boobu di daaru sàkkool gelongal ci diiru ñeenti at ci taawam bii di sëriñ Sidi Mbacke abdul axad ci dëkk boobu la feeñe jamono di gelongal ganeen njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñoom itam kenn demul ñu des ndax képp koo xam ne nii kër sëriñ Touba seexul xaddim moo la meññi da nga fekkanteeg jamono sëriñ Omar Mbàkke Gelawangal ci biim sancee daaru sàkkool Gelawangal teg nga fa sa tànk ngiru kóllëre ak bokk guñu bokk waajur te lu dul lool sax dégg ngeen bu baax kàddu yu am solo yi sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke seede ci jëmm jooju di sëriñ Omar Mbàkke Gelawangal ndax nee na kat biñ nekkee Touba di jàng ci daaray am Amsatu Jaxate ci kër googu lañ daa jëfandikoo wala bokkoon na ci kër yiñ daa jëfandikoo yeneen cheikh yi mbokk loon ëttub ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim ñoom itam ñu ci baree baree bari ñëw nañ ci dëkk boobu di gelongal ngir seet si sëriñ omar mbàkke ngir kóllëre ak cofeel sëriñ omar mbàkke gelongal kii di cheikh a diop almashar yu itam way na ko ay way ginnaaw bu mu nuyoo moom cheikh ibrahima diop almashar yu wax moom mooy kan mi ngi wax ne ki muy waaj way nag rakk la ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim di doomu sëriñ mbàkke kajoor di wax ne ki muy waaj way muy suñu omar mbàkke mi ngi bokk itam ci njabootug mbàkke mbàkke mu ne njaboot goo xam ne nii duñu laaj kenn ndigal boroom mu ne kooku muy waaja waay nag bépp jikko bu rafet mi ngi ci moom mu ne itam jëmm jooju ku taaru la woon jëmm jooju itam ko amoon jëmm jooju itam ko amoon teggin la ba boo ko masaa gis sa xel dem ci sariya mu ne ku tabee la woon te tab gi yéeme na lool aw waame rek lañ ko doon jaawaleel mu ne yàlla mi moom aras nag tey maye yàlla na yokk ay mayam ci darajey xaadim rasuul sëñ omar mbàkke itam ko amoon ngërëm la ci kim yaakaaroon di xaadim rasuul ay ayib nag amu ko wa ilaa bu ko amee ñaari ayib dong la benn ba dafa amitee gin ñaareeru lam jàppee ab ayib nag mooy tab ga mun a tab ga day sottee ko ba mel ne waame ñi ko ñee ñépp nag ci ñaari jikko yooyu lañ ko ñee ma ngay ñaan nag suñ boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram yu yaatu daal la cheikh ibrahima diop almashari yu def ci suñu omar mbàkke gelongal ngir di ko ca tagg ak di ko ca kañ teewlu ko qaala ibrahima bun mohamad yób almasari yu nihmal fata dajlu ibrahima ay xomari bakki yu aslu bi amrilaahi muhtamiri jamilu xulqin bahiju xalqi soo adabi jammin wa doona nidaa'ul bahri wal matari qad naala maa naala mima laysa yaxsuruhu min alfadaili laa xaqun wala fikkaru ataala mahyaahu rabbul arsi mahtiyahu maaraama atastadat bi nuurihi sumaru bijaahi ustaasina alxadimi ahmada man laysat fadaahiluhu wallahi tanxasiru alayhi akbar ridwanul muhayminu maaxat laati samsu aw maaxat bada xamaru laxat faasa bilmarxubi min cheykhihi umaru waxat laa bayna al anjumi suhrika alxamari wa maa aybuhu ila taaddubi wa taqi wujudun ka misli lbahri aw waakifu lmatar xat faaxa xulxan suma xalxan wa innahu ala saadatin kullu ala jiilihi sahar ataala ilaawul arsi bilfadri humra نوره وأهتاهما يبقي وجنبه الكدر بجاء الخديم المرتضى أحمد الذي أباه إلى الكون ما رحم من بصر عليه رضا الرحمن محمد يحبه مدى الدهر ما دام الكمال سيد خضر ginnaaw way yooyu ko cheikh Ibrahima Diop almasar yu way kii di cheikh Moussa Ka itam boole woon na kook ay way ak magam ja ma Massamba Mbacke soo demee ca way yim leen boole ñoom ñaar cheikh Moussa Ka mu ngiy giñ ne gis na ci mbindum ku baax ki sëriñ Tuubaa ak seex ma sàmba mbàkke ak moom ñoo bokk fu ñuy nekk soo toppee bayit yooyu mu leen way ca biir bayit ya seex musaa ka ma ngay wax ne seex ma sàmba ak sëriñ omar suñ boroom moo leen def boroomi daraja yoo xam ne nii lu yàqu ñoom ñoo koy defaraat ñu teew teewlu ñeenti woy yi seex musaa ka boole seex ma sàmba mbàkke ak sëriñ omar mbàkke sëriñ omar mbàkke sëriñ ma sàmba foxraas yu baax yi ñooy dëkk ak seex bàmba bilaahi gis naa fu sëriñ bi bindoon wax ni omar ma sàmba ñooy dëkk ak man seeni njëmbat jeg na bu yàgg-yàgg ngir jëkkiwu leen ba tey di door a regg yéen satoo kokki satoo ca maaram am ngeen si diiti garmi am yooyu yaaram buur yàlla moo leen def boroomi daraja yoo xam ne yu yàqu ñoo koy defaraat ku ñuy wax sëriñ Alioune Thioune bokkoon itam ci ñi daa bind moom itam way na sëriñ Omar Mbàkke ay way ñu lu way yi ko sëriñ Alioune Thioune way Seydina Omaro oh, yaa di nuuru layla bamba mooy kara léeri ay sa balla toj nga gol ba mu nooy mbàkke kenn gisul mbooy luy dawal masinam gaynde yépp ginnaaw way yooyu ko cheikh Moussa Ka way ak cheikh Ibrahima Diop almashariyu ak sëriñ Alioune Thioune sëriñ Omar Mbacke gelongal tudde na magam ji doom sëriñ Amar Fall Mbacke sëriñ Amar Fall Mbacke itim tudde na ko doom sëriñ Omar Mbacke gelongal tudde na waajuróom wii di cheikh Ibrahima Mbacke di seriñ mbakke Mbacke Kajoor lii di doom ndax cheikh Ibrahima Mbacke gelongal mi ngi fi maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru itim bokk itim ci ñi ko jàngal lii di xam-xam tudde ko doom ndax sëriñ Thierno Mbacke gelongal mi ngi fi mbàkke di waajuru waajuram moom itam tudde na ko doom ndax maam bàllam sëriñ omar mbàkke gelongal mi ngi fi sëriñ tuuba seexul xaddim mi ngi ko jébbaloon tudde woon na ko doom ndax sëriñ cheikh mbàkke gelongal mi ngi fi woon njabootu ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim di njaboot gu jigéen gi itam kii di sëriñ omar mbàkke gelongal ñu wóllërante woon ak moom la ndax dëkkoo woon na seen mag di soxna faati mbàkke bintu sëriñ tuuba seexul xaddim mu wéy nag des ci dëkk boobu di gelongal ba nim génnee àdduna ci atum 1953 di wéyal ndigal li ko ku baax sëriñ tubaa seexul xaddiim bàyyeeloon muy saa su nay jàng alxuraanul karim ba tax na sëriñ omar mbàkke gelongal daana defitim saa bu xëyee yor kaamil bi di jàng alxuraanul karim ba bu gan masaa ñëwitim fa mu yem ci alxuraanul karim dana ko xam ba bu gan gi delloo mu wéel am njàngam ndax ndigal lool dong nag la ko fi sëriñ tubaa seexul xaddiim bàyyeeloon ci lool la sax ba nim génnee àdduna ci atum 1953 laata muy génn àdduna ci atum 1953 feebaritim tëraloon na ko ci at moom cheikh mohamadul liggéeyam sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim mi nekkoon ñaareelu xalifa Xaadim Rasuul moo sàkk woon ci Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ak kii di sëriñ Moodu Xabbaan Mbàkke ibnu Cheikh Mandumbe Mbàkke ak kii di sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ibnu Maam Cerno Ibrahima Faati mbakke ndaamal daaru ngir ñu ñëw ci dëkk boobu di daaru sàkkoor gelongal ngir jël si sëriñ Omar Mbàkke ngir mu tëdd feebar boobu ci dëkk bu sell bi di Tuubaa ginnaaw bu ko ñett ñooñu jël see ci ndigalul mu Mamadul Faadal Mbàkke indi ko nag ci kërug boppam gi muy kër gi ko sëriñ Touba seexul xaddim dëloon ci Touba ngir wax ko mu toog fii ci kër googu la mujj génne àdduna ci feebar boobu ko tëraloon sëriñ Omar Mbàkke gelongal mi ngi génn àdduna bisub samedi fukki fan ak juróom ñeent ci weeru digg ci atum 1372 ci gàddaay gi samedi fukki fan ak juróom ñeent ci weeru digg ci atum 1372 ci gàddaay gi dëppook muy samedi benn fan ci weeru ut ci atum 1953 samedi benn fan ci weeru ut ci atum 1953 ci dëkk bu sell bi di Touba ci kër gi mu amoon di këram di kër gi ko sëriñ Touba seexul xaddim dëloon ci Touba ci kër googu la génn lii di àdduna ñu yëgal ko ki nekkoon xalifab sëriñ Touba seexul xaddim di cheikh dul Faadal mbakke mu sàkku ca rakkam di cheikh dul Bachir mbakke ngir mu taxawu sëriñ Omar mbakke Mbàkke cheikh Mamadul Faadal moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi ci teewaayu mbooleem njabootu ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim yi fi nekkoon jamono jooju yilifam nii la tëddee ci benn fan ci mois de août ci atum 1953 ba ñetti fan ci mois de septembre ci atum 1999 sëriñ Moodu Mbàkke Gelongal mooy ki ka njëkk a wuutu moo nekk itam ab xalifaam bu njëkk ñaareelu xalifa sëriñ Omar Mbàkke Gelongal mooy sëriñ Ceerno Mbàkke Gelongal moo fi nekk ci le 3 septembre 1999 ba nëgëni ñu koy ñaanal mu sut waajuróom wa aw fan ak magam yi mu wuutu te suñ boroom defal ko barke ci toogaayu sëriñ Omar Mbàkke Gelongal ci yoon wi te képp kuy murit itam war ngaa ñaanal sëriñ Ceerno Mbàkke gelongal suñ boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram ndax xam-xamam kat yoon wi soxla na ko ak mboolem ñum séqal sëriñ Omar Mbàkke gelongal sëriñ Omar Mbàkke gelongal nag am na bis buñ koy fàttaliku wala am na bis buñ ko daa fàttaliku ci li ñu tuddee ak màggal ndax ginnaaw bu mu fi bàyyi bàyyikoo ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru digg ci atu 1953 doomam jii di sëriñ Moodu Mbàkke gelongal te njëkkoon koo wuutu daana ko ci weeru tabaski waaye ginnaaw bi nag cheikh mamadul faadal mbàkke tere woon na fi bis yi ñuy fàttaliku mag ñi ci bis yi ñu génnoon àdduna wala sax tere woon na fi màggal yépp sax noonee itam sëriñ moodu mbàkke gelongal déggewu ko woon ak nopp yu tëx moom itam jëfe woon na ndigalul cheikh mamadul faadal mbàkke jooju muy bàyyi woon màggal googu mu daa màggalal sëriñ omar mbàkke gelongal ngir di ko fàttaliku ci bis boobu mu génnoon àdduna waaye nag màggal gi itam nag daanañ def at mu jot bu dikkaatee ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru digg ñu jàng alxuraanul karim ngir màggal bis ba waaye woote gi moom bàyyi woon nañ ko ci ndigalul cheikh mamadul faadal mbàkke ginnaaw bi nag bu fi sëriñ moodu mbàkke gelongal bàyyi ko ci atu 1999 mbàkke gelongal moom itam jàppaat na bis boo xam ne ni da ciy fàttaliku waajuramam wa di ci ñaanalaale nag mbooleem njabootuk sëriñ omar mbàkke gelongal gi ñu koy jàpp nag ci weeru mars wu jot ci dabu nag bis ba seen maam ja sëriñ mbàkke kajoor jébbaloon seen waajur wa sëriñ omar mbàkke gelongal ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim ci dëkk bu sell bi di Touba bis booba nag la ñuy dabo ngir di ci màggal di ci ñaanalaale seen waajur wa sëriñ Omar Mbàkke gelongal dëkk boobu mu sanc di gelongal màggal gi nag màggalug bëccëg itam lay doon ñuy ñaan ci doomu sëriñ Mbàkke Kajoor ba sëriñ Omar Mbàkke gelongal ak ci darajey kam doon liggéeyal di ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim lii di jafe-jafe réew mi itam yal na ko suñ boroom saafara ba lépp luy metti metti itam dañ fi mbégte ak bànneex rek di wasaaroo ci réew mi di Sénégal suñ boroom am man na ko yàlla na ko def ci darajay xaadim rasul amin amin amin amin